ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, di nuyu aussi askanu cees di wax ni tey daje nañu fii ci préfecture bu Thiès euh, ci préfecture bu Thiès euh, bi nga xamee ne que ni tey moo ñu permettre moom préfet ñu organiser li nga xamee ne ni moom mooy réunion de lancement bi ci benn projet bu bees kii wax ak yéen tey nag mooy Alioune Euh, nekk manager Kajoor Jànkeen Kajoor Jànkeen nag kenn dootu ko expliquer population Thiès kenn du ko expliquer aussi ñi nga xamee ne que ni moom mooy les agent de développement ak chef de service yi fi ne tey nag ñu daje woon fii ak chef de service yi nga xam ne ñoo nekk fii yëpp ci département bi euh, pour waxtaane benn projet bu bees boo xam ne ñi ñu ko indil mooy suñu partenaire yi toog partenaire bi tudd BMZ nekk ci fële nga xam ne mooy ministère des finances de l'économie bu Allemagne ñu indi ñu benn financement bu bees pour ñu mën a euh, saytu li nga xam ne que ni moom mooy euh, wérgu yaram ak comportement bi nga xam ne ni moom la suñu jànk ji yor ñu koy wax euh, ci wàllu SRAJ ci français muy xale yi maanaam bu ñu demee bay gis baax nan la ñu mën a jëlee seen bopp en charge mais fan école ndax xam nañ ni Euh, xale yi naam ci kër yi ñu ngi koy def waaye li ci gën a doy waar mooy au niveau de l' buy xale yi nekkee école jàngi loolu dab leen euh, yàlla day dogal ni xale yi dañuy mujj dem toog seen kër ndax cadre ba normalul wala amuñu jumtukaay yoo xamee ne que ni moom moo leen di permettre bu leen fa dalee ñu mën a jël serviette yi dugg ci toilette yi euh, defaraat seen ki continuer seen i cours ba ci sa biir bi di metti mu mën a jël médicament et je pense que Euh, ñun daaw rek liggéey nañ ci projet bi euh, euh, pour douze école ànd ci ak ki nga xamee ne ni moom moo yor njàngale mi fii ci région bi ñu ànd ceeg ñoom bi ñu ànd ñoom nag dañoo ànd ak ñoom ci ay fànn maanaam tabax ay douze réfectionner aussi toilettes yi def ci box boo xam ne dinañ ko dinañ ci def commodité yëpp ba nga xam ne xale bi bu ko loolu dalee dina fa dem def lépp lu ko war te Euh, ay moromam duñu mokkee ci moom mais aussi mu def ko ci li nga xam ne mooy sutura te kenn du ko ko xamal beneen bi mooy aussi ba ñu tabaxee ba pare jël nañu former leen former xale yi pour nu ñuy defaree servite hygiénique yoo xam ne que dina leen permettre ñu mën ko di utiliser bu paree bu ñu paree fóot ko weer ko utiliser dencaat ko bu leen euh, seen règle di kalaate ñu mën ko utiliser ndax ñenn ñi dañu dul am moyen saay su ne ba nga xamee ne que ni projet bi euh, maanaam saa su ne nga xamee ne loolu dal na leen muy wàllu règle ñu mën a dem ci boutique ba jënd li nga xamee ne que moom mooy serviette hygiénique yooyu euh, daal di koy jëfandikoo moo tax ñu jàngal leen nan lañ koy defee mais aussi beneen bi mooy ñu sensibiliser leen feer leen comprendre ni lii feebaru naturel la bu leen dalee war nañ koo mën a euh, contenir continuer seen activité mais aussi ak ci béréb bu mu leen mën a dalee xam nañ au niveau de l' loolu dafee tumuranke woon raison pour laquelle ñun ñu jëloon rek fukki école ak ñaar doon ko def ba ñu paree daal di koy càmbar ba ñu ko càmbaree gis nañ ni mbir mi itteel na ñëpp et am na ci lu mu dolli xale yi jigéen yi ci biir école ba moo tax bi ñu paree ñun tamit ñun ak suñu partenaire bi nga xamee ne que ni moom mooy ci Alfen ñu tëgg li nga xamee ne nii ay projet daal di koy soumettre ci la nag suñu partenaires yi bees yi muy BMZ nekk ci Allemagne Euh, préféré financer projet bi fii ci Thiès ak fa nga xamee ne mooy Diourbel ci juróom-ñetti école ci Thiès juróom-ñetti école ci Diourbel mais aussi poste de santé yoo xam ne set la fi ak yeneen yi nga xam ne ni mat nañu juróom-ñeent fële ci Diourbel ñu jéem a xool ci atum diiru ñetti at nan la ñu mën a tëggee loolu ba comportement yi changé ba mag ñi di mën a waxtaan ak xale yi ba ñu wut ay béréb yoo xam ne xale yi dinañ fa mën a dem waxtaan ci sa mbir mi nga xamee ne que ni warata mën a nekk tabu te ñu ci bëri xaw nañ cee rus mais aussi fexe ba waxtaan ci biir école yi mbir mi mais aussi dimbali xale yi ba nga xamee ne que ni taux bi ñu daan toog maanaam bu ñu daan gis baax dañuy toog seen kër ñu loolu bañ a amati dinañ ci ànd ak ñoom nag pour ñu dimbali ñu ci école yi ñu tabax li nga xamee ne ni moom mooy toilette yu normal yu mën a jël en compte bu xale bi mais suñu paree ca loolu aussi ñu mën a euh, équiper li nga xam ne mooy toilette yi équiper li nga xam ne que mooy infirmerie yi école yi mais aussi fexe nan la xale yi di mën a am ay centre yoo xam ne dinañu toog di waxtaan mais xale yooyu tamit nekk ay relais ci ci biir li nga xam ne mooy communauté yi pour que ñoom ñu mën a waxtaan ak seen i morom mën a waxtaan ak seen yaay mais mën a aussi intégrer li nga xam ne mooy question bii nga xam ne mooy wàllu mba baax maanaam période règle ñu mën ko intégrer ci suñu quotidien ba du doon ti loo xamee ne que ni euh, maanaam lu tabu lay doon maanaam loo xam ne dañ koy rusa waxtaanee ou pas mais aussi ñu def benn lien boo xam ne xale yi dinañu mën a waxtaan ak seen waajur yi ci kër ga ci mbiru mi nga xamee ne nii moom mooy projet bi ñu tëgg mboro projet bi tamit baax na ñu wax jàngale ci leneen lu dul ku jigéen ki buy gis baax nan la mën a jësee yaramam mais xale bu góor bi aussi nan la mën a moom mi nekk ak moom bañ a di ko tooñ yaakaar ni leneen la wala rus bañ ci am mais wàllum li ñuy wax maanaam nit ñi di ko wax bu ñu waxee ci wàllum baaxu jigéen nit ñi jël ko problème mu sexualité la yooyu loolu bokkul ci li nga xamee ne ni ñun moom la ñu nekk di ko doxal xam nañ ni dañoo am ñu ñu yar xam nañ ni ñun dañoo am culture xam nañu aussi éducation bi nga xamee ne suñu waajur def nañu ko te am loo xamee ne àddina lu neex ba mu génn suñu gémmiñ kon li ñu intéressé ci projet bi ñëpp war ko xam mooy fexe xale bi bu demee école wàllu li nga xam ne baax dal na ko fa mu mën a am serviette boo xamee ne ni dina ko téye mais su paree bu biiram di metti mu mën a am garab mais aussi fa mu koy defee mu nekk toilette yoo xamee ne que ni toilette yu mucc ayib la ba nga xamee ne que ni kenn du ko gis du ci rus du ci am benn problème loolu moo waral ñu def fii li nga xamee ne moom mooy projet bi beneen bi ci biir nag loolu dañ nañ ko accompagner ak lan ay sensibilisation ak jàngale échange waxtaan ak waajur yeeg yooyu daal ñu xam ni dañuy soog a door ci projet bi projet bi nag dinañ ko def ci anam bi maanaam ci commune Fandène la ak commune Thiès Est maanaam ci ay CM lañ koy def mais CM yooyu day yóbbaale poste de santé ya fa ne kon comme am na jeune fii yoo xam ne nekkuñu école ñi ngi ci biti ci ay centre de formation wala yooyu ñooñ tamit ñu may leen occasion ñu dem ca poste de santé ya foofu aussi bu ñu fa installé unité ya ñoom ñu mun fa waxtaan discuter yooyu mais mun fa amaa aussi li nga xam ne moom mooy jumtukaay beneen bi may tëjee nag mooy pour wax ni projet bu bees la teg nañ ko ci loxoy Kajoor Jànken mu bugg ko mu indil ko askanu bi nga xam ne mooy suñu communauté Fandène ak Thiès ñu dimbali ngalla woo nañu ñëpp. ñu ñëw bokk ci mais tamit nañu xam ni projet bi at bu njëkk bi Kajoor Jànkeen ak Caal Fën dinañ ci participer vingt cinq pour cent bu ci tegu cinquante pour cent mais tamit ñii mënuñu ñëw dimbali di dem kon collectivité territoriales yi ñu ngi leen di woo pour wax leen ni projet bi seen projet la nañ ci ñëw jàpp pérenniser ko bu ëllëgee bu ñuy demee ñoom ñu mun ko continuer parce que ñëpp soxla nañ ko projet à savoir euh, la coopération économique allemande et Child Fund ainsi que Kadior Janken. Vous savez, l'État du Sénégal est là pour les enfants parce qu'un cadre institutionnel est mis en place pour ce qui concerne la protection de l'enfance. Des comités régionaux Les locaux également sont mis en place pour la protection de l'enfance. Aujourd'hui, nous parlions particulièrement des jeunes filles dans le cadre de la gestion de leur menstrues qui, nous savons, cause beaucoup de difficultés pour même les bloquer parfois dans leur éducation pour la réussite à l'école. Si aujourd'hui vous êtes venus pour les accompagner, je pense que nous ne pouvons que vous féliciter et vous encourager à continuer davantage dans ce lancer. J'aimerais également revenir sur euh, l'activité des ONG, comme on l'a souligné tantôt. Vous savez, on toujours rappelé que les ONG ont une obligation de faire des rapports trimestriels. À chaque fois, on a l'impression que cela ne se fait pas toujours comme cela se devrait. Vous savez, vous menez des activités, et des activités très importantes. Il est de votre devoir et il vous appartient également de les partager pour que les projets soient connus de tous et que vous puissiez être accompagnés également dans ce domaine. Je voudrais rappeler également, Madame Sall l'a cité par rapport au décret de 2015 sur le suivi évaluation des ONG. Il y a également aussi bien au niveau national que régional, départemental et local des comités de suivi des activités des ONG qui ont été mis en place. Je vous demanderai de vous rapprocher également de ces comités-là pour pouvoir partager davantage vos activités. Vous savez, vous l'avez tous remarqué, ou bien du moins, Monsieur Diallo, vous l'avez de suite remarqué avec l'absence des collectivités territoriales. Mais si vous avez bien lu la, les, la convocation, vous vous rendrez compte qu'elles ont été conviées à ce rendez-vous. Nous ne manquerons pas également de faire remonter l'information pour voir ce qu'il en réellement. comme vous le savez, vous l'avez souligné tantôt parce que vous l'avez tout de suite remarqué. Mais aussi, il y a des obligations qui pèsent sur vous et nous vous invitons également à les, à les remplir pour faciliter davantage euh, les interventions de, de, de l'État du Sénégal. Nous voilà donc au terme de la rencontre. Je remercie une fois de plus tous les participants et particulièrement Madame Suzanne, le partenaire qui a su également prendre la parole lors de la rencontre Euh, bonjour, je suis euh, Suzanne de Child Fund euh, Allemagne. Euh, on est ici aujourd'hui pour euh, une, la réunion de lancement du nouveau projet sur la santé reproductive des adolescents et jeunes intégrant une composante sur, euh, sur la gestion de l'hygiène menstruelle euh, dans les départements de Thiès et de Durbel. L'objectif de cette rencontre aujourd'hui est de partager euh, les objectifs et axes d'intervention stratégique du projet avec l'ensemble des parties prenantes du département de Thiès. Euh, le projet dure euh, trois ans au total. Il sera mis en œuvre dans 16 écoles et 16 euh, postes de santé. Euh, le budget est de à peu près 600 millions de francs. et 60, euh, 75% euh, est financé par la coopération par euh, le ministère de la coopération économique. Et 25% seront financés par les partenaires locaux et Tchad Fund Sénégal. En fait, euh, je que comme ma collègue a dit, Suzanne, il projet qui vise l'amélioration de la santé de la reproduction des jeunes les deux départements de Thiès et de Diourbel. on le sait, on sait que les jeunes euh, sont confrontés à beaucoup de, de problèmes euh, par rapport à la précarité, mais également par rapport à euh, La question de la santé et de l'hygiène menstruelle est extrêmement importante dans la mesure où des études ont montré qu'il y avait une influence forte influence euh, euh, négative sur la, le, le, la fréquentation scolaire, les performances scolaires de la fille, par exemple, euh, au niveau de l'école. Les filles et les femmes sont confrontées à beaucoup de problèmes qui sont liés euh, aux, à, aux infrastructures, à l'accès à des infrastructures adaptées. Il y a également la question sociale, la question des, des, des tabous qui limite en fait la femme et la fille à pouvoir, euh, disons, gérer convenablement leur mastrue. L'influence, pourquoi elle est également importante, cette intégration qu'on fait, le fait de d'identifier, le fait d'éduquer la fille dans, à pouvoir connaître son corps, à pouvoir identifier ce qui est normale de ce qui est anormal, le fait qu'elle puisse détecter précocement ses affections permet de prendre en charge précocement les problèmes de la femme, de la future femme. Et donc, un autre aspect qui est, qui important dans cette intégration, nous savons que même l'offre de service également, de, la plupart du temps, les questions de la santé de la reproduction, on ne prend pas toujours suffisamment en compte les questions de la santé et de l'hygiène des menstrues. D'accord. Et donc beaucoup d'études ont montré également que de plus en plus on voit des filles euh, qui, ne, on ne pratique, qui pratiquent pas convenablement la gestion de l'hygiène menstruelle et qui peut avoir une influence sur les infections euh, de sa santé euh, avec des complications notamment en termes de l'infection de traces génitales. Et donc c'est important de prendre ces, ces, ces, ces considérations. Bien entendu, nous savons qu'il y a la question des ressources qui ne sont pas toujours suffisantes et qui appellent en fait à ce que tous les acteurs qui travaillent autour de cette question puissent travailler ensemble. Et donc, on pense qu'avec ce projet-là, on pourrait en tout cas améliorer ce, euh, ce, ce que, la synergie. La synergie et euh, donc faire ce que les gens sont en train de... améliorer ce que les gens sont en train de faire, en tout cas en termes d'accès pour pouvoir améliorer l'accès, la disponibilité des services, aussi bien au niveau de l'école qu'au niveau de structures de santé. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre des stratégies, on se propose de mettre en place des unités de conseil et d'orientation des adolescents jeunes dans toutes les structures de santé qui sont ciblées, euh, dans, les, dans écoles, dans tous les, euh, les établissements, les collèges et les lycées qui sont ciblés, Autre euh, stratégie d'intervention, c'est les blocs sanitaires, parce qu'il faut qu'on mette la fille et le garçon dans des conditions d'hygiène optimales qui leur permettent de pouvoir gérer en tout cas certaines problématiques, notamment la question de la santé des jeunes et de la, la, la, la santé menstruelle. Donc, il y a des blocs sanitaires qui vont être construits et mis en place au niveau de ces écoles, équipés et qui permettraient à la fille de pouvoir durant cette période de marche, de pouvoir se en toute dignité et en toute confidentialité, en toute intimité. 85, les études des filles n'allaient pas à l'école durant cette de menstrues à de la douleur disponibilité de ces produits menstruels. Et la raison pour laquelle une des en place des kits de GHM pour permettre même si euh, les, les, les, règles surviennent de façon inattendue, qu'ils puissent gérer, rester à l'école, gérer ces questions de menstrues, au lieu de retourner à, à, à, à la maison ou de ne pas venir à l'école simplement parce qu'elle a, a vu ses, ses menstrues. Autre type d'intervention, bien entendu, le jeune est à l'école, mais le jeune est également au niveau de la communauté. Comment couvrir les besoins de ces jeunes C'est également la mise en place d'espaces ados jeunes sûrs au niveau des structures de santé, notamment les postes de santé, qui vont pouvoir offrir le service, mener des activités de communication pour le changement social et de comportement au niveau des communautés dans les sites communautaires. Donc il y aura la formation euh, donc à tous les niveaux des prestataires de santé, des enseignants, des pères éducateurs qui vont pouvoir mettre en œuvre en tout cas ces, actions, offrir le service et réaliser les activités de communication. Un aspect important, c'est la transversalité. On sait que ces questions, c'est des questions transversales qui demandent alors une, une participation de plusieurs secteurs. ça que dans cette approche qu'on appelle l'approche des, des, des, des 4C, un, un, un, des axes d'orientation, c'est la multisectorialité avec l'ensemble des acteurs au niveau du département de Thiès qui doivent travailler euh, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet avec la fédération Kadior Janken qui est chargée en fait de mettre en œuvre le projet ici au niveau euh, donc du département de Thiès. Donc nous appelons, nous invitons l'ensemble des acteurs à, à, à, à, se joindre, en tout cas à nous, à pouvoir s'engager, qu'on puisse travailler en synergie et également vraiment dans des actions concertée pour pouvoir mieux répondre aux besoins des adolescents et des jeunes. Merci